itam dongoy siyaara ñi njabootuk Serigne ci koo fi toogal tey mu Serigne kër gi li nit ñi bari bari dongo yi xàddiwuñu ngir noonu lañ ko defe itam ci kër rakkam yi tedd yi di Serigne Mourtala Mbacke ak soxna Maymunatu Mbàkke fu nekk ci biir dëkk bi ci kër yu mag yi dongoy siyaare nañu fa waa ko sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbàkke sëriñ Aliou Mbàkke waa ko sëriñ Fàllu Mbàkke sëriñ Moustapha Fallil waa kër Serigne Abdou Lahad Mbacke Serigne Sidi Mbacke. waa kër Serigne Abdou Khader sëriñ Serigne Modou kër Serigne Bara Mbacké Serigne Cheikh Matilé waa kër Serigne Bassirou Mbacké Serigne Moustapha Mbacké waa kër sëriñ Abdoulahi Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke waa kër sëriñ Ibrahima Mbacke sëriñ Damata ak waa kër Serigne Souhaïbou Mbacké Serigne Cheikh Sey bis bi dëkk bépp fees foo taxaw fu ne ak waxtu wu mën a doon doo amul nattable ci ne ñëpp wuy si nañ ci te ku nekkit am nga rafet njott ci ne loo fi fas ak loo fi ñaan da nga ko bëggee rekk nga koy amee ndax Serigne Touba wax na ni képp kuy waaxu ci kaw suuf barab bii boo fi ñëwee loo bëgg di ko am ngir moo wax ni zimaamu wara hansari ladallaahi fii yadi wa maarumtuhu min malikin xaarabil an yi loolu nag ginnaaw moo ko wax kenn nattablewul ne sàkku na ci barab bi yàlla képp ku fi taxaw la nga fi sàkku nga yóbbaale ko wax na it ne wax fir li kulli man biha qad sakana wa lillazi laha li xayrin rakina yow suñu boroom ñaan naa la nga jéggal képp ku dëkk Tuubaa ak képp ko jóg jëm si fi ngir lu baax seen bakkaar yu jëkk ak seen bakkaar yu mujj la màggal gi ngir defee ko ñu ko Serigne Touba digle mu jiital bis di woo gatandoo di ca tofal bis di ko gunge mbooloo mépp yendoo nañu ko bisu fukki fan ak juróom-ñaar fanaane ko yendoo ko bisu fukki fan ak juróom-ñett fanaane ko bés di gaaw fukki fan ak juróom-ñeent gunge bi sëriñ bi sant na kilifa diinay dikk ànd ak moom xew-xew bi di màggal gi sant na leen cant gu matale it goo xam ni won na leen ci ne ñoo bokk liggéey bi mu diiney lislaam ci daje gi mu dajeek ñoom ci ñéegu yàlla bi nga xam ne bii mooy jàkkam ji nga xam ne ji mu fonk la nekk ci biir këram daje faak ñoom saafonteeg ñoom nuyoo faak ñoom fab léppam booleeg seen lépp mu dugg ci cantuk teewaay bi ak yëg gi ñu yëg Serigne ñëw ci bis bi. moo tax itam ku teew ci jotaay ba xam nga ni këri diine yëpp ñoo bokk lu ñu bëgg loolu feeñ na ci seere yu ñu seeril Serigne bi ci seen xool bu sedd ci ay teraangaam yu mat ci teeru bi ak dalal gi. ak yëg gi ak dal xel gi mu dal xelu lislaam xamal nañ ko li mu doon ci lislaam bi doon ko ci liggéey Serigne Touba wax nañ ko ko ci xeej tagg yu ne te buñ ko koy wax ñu nit yàlla bi mu amee te kenn làmbatuwu ko moo tax te loolu yàqin lañ ci am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 وقل رب أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك من يحضرون سبحان ما صلى الله تعالى على سيدنا عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nooy di nuyu ñu kilifa yi ñëw te kilifa yi ba seen fi da ngeen di sant di delloo nuyoo bi nuyoo bu rafet te di leen sant lii di diine yi nga xam ne dikk nañ fi te lu nekk ñu ànd ci ak noonu ñoo ngi leen di leen sant mbokki taalibe yi murid yi nag ñoo ngi leen jàgg si seen waxtaan bopp ak seen ndigal bopp ay seen cant bopp xam ne ñu ngi leen digaloon màggal gi defe ngeen ko ni nag seet na ci bu baax dañ ci def njort bu baax it defe dana ci daje tey ngërëmal Sëriñ Tuubaa ñaan yàlla suñu borom <coughs> mu daje ñu seeg tawfeex ak xéwal te yi te musal la ci seytaane ñooñu fàttali it ñi nga xam ne moo ñu fi indi moo fi indi bàyyi na fi yàlla sunu borom wa laqad wassayna seen usub kitaab yi xam ne ko yaakum an ittaqullaha an ittaqullaha akramakum indallahi atqakum fattaqullaha mastata'tum yaa ayyuha llaziina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi moo jiitu kooku man kooku man fattaqullaha mastata'tum yàlla yërmaande yaatal na ko ne lotum ñu def itam ba mu diglee la ci mu amee xam ne li mu nekk man xaqatu xeet yi ak sataansum ñaar yi nu mu seq kenn du leen wàcc wala te leen doo ñu di fàttali itam njàng ma alxuraan yi muy sëñ Tuubaa digal nga xam ne toxu bari ci suñu mbir aj na ko ci ñu ñaan foofu taalibe bi muy dem di jàng alxuraan bu ñu def kër sëñ Tuubaa ñu fa jàng lim boobu wax ñaar fukk ak juróom-ñett yi tàmbali ba fuñ ko mënee pour kër ku ne la nga mën nga di ko ci def. bis salaat fan yaa ngi fay saa yu nu ko góor yi zikru laay akbaru danaa xam ne tudd yàlla yàlla màgg ci jaamu yàlla bokk yàlla yàlla bokk. ñu ngi fàttali gàmm gi buñ ci àggee donc ñun léegi fi mu ngi bii. doole ci yéen joxe ay yiw bokk na ci njëriñ jaam yi bu fekkee àgg nañ ko fonk bu baax ni ma ci daa wax ñu sàkk ñu dajaloo bu ne di ko def nañ ko def fa ñu dajaloo di ko def ñu ko mënut ne koy def dëkk ak ñoom waa ñu dem ak ñoom nañ leen fekk te ànd ko ñoom ñu ko fàttali si si gàmm gi ñu ñaan yàlla may nu ci xéewalam yi mu boole nu ci ak nawet bu barkeel bu yaatu bu lay fépp may na jàmm itam may bi moo am jàmm mën koo liggéey de may moo sotti te mënut ko mënutuloo ko mu ci ci la jëkk mu jël nag mooy fàttali yàlla man de maa ngi tuub tuubal yàlla sans borom te te na nu tuub tuub na jaam ku ne xaq yàlla joxe ko joxe na daal la nga mën la nga mënul nga di ko yéene ni man laa maa ne bi ñu jeete ni maa li ko yéene maanaam yéene ci jaamu yàlla mi lu ko mën na ko def mu ci mën nañ ko yéene ci day tuub ci li nga xam ne teel nañ ko ak nga xam ne def ko ñaanu may la maa koy tuubal de ko ñaan asalaamaaleykum wa rahmatulah. Kilyahilevi aya babama asikinsa Kilyahilevi aya babama asikinsa sadaka bir Aslanın adı Kilyahilevi aya babama asikinsa Lillahi ilahi ginnaaw bi waxtaan wi jàllee ci la sëriñ bi teral gan ñi délégation officielle bi di kilifa yi nga xam ni ñoo teewaloon waa nguur gi ci kër Serigne Touba yi ñëpp ñaanal ñëpp. wéetaay wi tàmbali dugg ci xol yi ngir ñàkk doole ci bis bi ci noo xam ne sëriñ tuwaa taxaw na ci ku nekk ci lépp waaye moom Serigne Saliou Mbacke ci at yu néew tax na diggante màggal ak gàmmu meloon ni lu sori jegal na ko ba mu di benn wàññi na wéetaay woowu ba nga xam ni diggante fi ñu yeewi ko ci màggal waajtaayu gàmmu dana toll ci bépp taalibe noo xam ni wéetaay du fa loolu ku ne xam na ko noo ngi ñaan Serigne Touba mi nga xam ni yaakaar te lépp lu ñuy def jëmmam ji rek waral ko mu nangul ñu lépp lu ñuy def ci bis bi te defal ñu ci li ñuy sàkku muy ngërëmam rek noo ngi koy ñaanit bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom saa bu dikkatee mu gën ñoo xiir ci jëf ci lu ñu mën ak lu ñu mënul ba ndimbal li ko yàllay dimbali ak ndolle li mu koy dolli ci bis bi ñu taasuwaale ci biir ci barkeb Sëriñ Saliou Mbacké feddali ak di yeesal suñuy laxasaay ci gannaaw Serigne yu mbàkki te di ko seeral nag ñun waa Hizbut Tarqiyyah gépp ci loo xam ne Serigne Touba lañ koy seeraloo sunu cant ci def gi mu def sunu màggal muy màggalam moo nu ci mënloo moo ci sunu ndimbal moo ci sunu làmp mooñ ciy defal diñ ci sàkku lépp kon noo koy ñaanal mu yàgg fi te yàgg jiite liggéeyub sëriñ Touba bii ñu yàgg koo ànd ak moom wa rahmatullahi wa barakaatuhu